amul aiguille lan mo nek ci horloge bi muy inna saata la aatiyatun la rayba fiha walakin akthara annaasi la yuminuun amee na jëmm montre mais waxtu wi mu lay yëgal newul ci montre bi te yàlla nee na mu ngi ci yoon wi di ñëw mais li lay jaaxal mooy aaya bi boo ko déchiffré ñaar fukki xaraf la ak ñeent mu représenter vingt quatre heures yi ni kon defuñu ko ci hasard waaw inna saata la aatiyatun la rayba fiha walakinna akthara annaasi la yuminuun waaw loolu mooy tax nag noonu kooku di am yitte pour horloge du am retard du am avance yi yàlla bind ci yow itam noonu la ñu war a amee ku am yiiti muy roox bi muy nafs bi muy xalb bi muy jism bi ku leen di dimbale ba du ñu am ni retard ni avance bu ko defee nag ci ngay gisé natt ba ci yonent bi illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ngay set rek wa ni retard ni avance wa rattilil qur'ana tartilan bu ko defee nag ci lu bokkul na ak wa shaf'i wal witr bële mu giñee alquran fëggatiku beneen guddi mu ni waaw lu xew mu ne ko indil naa la beneen séet bu gën a màgg bu ànd ak rakkam mu ne ko nu ñu tudd mu ne ko mag ji al shafaa la tudd rakk ji al witre la tudd waaw tax comme bi dañu dañ ko may presque am na ñaari julli boppam te mooy tisbaar ak tàkkusaan mais seddoo na ak suba gi séddoo na ak timis kon guddi gi lu muy am loolu tax ñu jox ko chef ak huit heures pour mu récompenser li mu perdre waaw yu sew sewaan yooyu ci wàllu tawil هذه ببكرتها هذه بحرتها هذه بحمرتها هذه بوسطها هذه بظلمتها إذ يسكنون لها أكرم بظلمتها أكرم بسكنها bu في كنا تأويل بابو جباي فاقرأ دم تعلم القرآن mooy indi la ma leen waxoon kër jëmb alsawmu an alqiraati walmutalaa waaw boo ca tolloo lecture da nga koy woor lu too jàng téere ndax daf lay tardeel téere daf lay tardeel waaw ndax li ngay seet leneen la chance. tax rek ñun nak Nous ñu am chance chance. Nous gis ci documentaire yi Nous di def ñu la sëriñ Babacar diw ak diw ak diw ak diw ñoo nekkoon ay sëriñu li la wax ku mel ni Seyid Cheikh di la tuddal ñoom Serigne Alioune Guèye Serigne Cheybatu mag ñu baax ñoo ñëpp ñu di leen tudd ku ci nekk ak bind ba daan tëralal mais ñun ñun lan mooy sunu chance ñun dañu tase kër gi toll ci faydu mag ñi waaw kenn fa nekk ku la mën a tëralal bind daf lay tëralal bind mais du la jàngal mooy oustaz Ousseynou Diène te wax na ma ko bés fekk boobu dafa am ay nit ñuy sow ci Tiwaawoon di wax ne mag Mansour dañu ñëw Dakar pour pour noos waaw man nag ma bëgg ko tontu te tontu ba du nekk xuloo sama livre bi ma njëkk a bindee ma ñëw fekk ko ca kanamu kooku ma jox ko livre bi mu ni ma lii nag ma ni ko maa ko bind bi mu liiree muqaddima bi ba noppi daal di sigg xool ma ni ma nga defe ni lii maa ko jàngal ma ne ko ah yaa xam de mu ma xanaa sant yàlla waaw ba tax na kon loo tax sunu xam-xam sorewul waaw dañuy liifantu rekk dama bëgg rek léeg-léeg capitaine di ma yóbbaale may jéem dabaatal tuuti waaw ndax yëf yi génération bi ñoo ko moom waaw di sant yàlla bu baax wax naa leen dama amul woon jot moo tax mënuma woon binde dara ma jéem a fortaatu rekk ñëw li ma mën a wax ak as néew ma wax ko waaye dama am ay wëllëree tey la ma sa am ma tudd leen Serigne Habib Sy bu maam Abdoul Aziz Sy tey faral di nekk aynu madi def di sama wóllëre bu amul morom te ñi ko xam ci kër gi barewul dinañuy faral di échange lu bari mag moom daf may faral di wax ni coono bi may daj ci jàng sëriñ Cheikh coono bu ni tollu lay daj pour jàng loo wax ni ko def di mbaaxu mag ñi rekk waaw waaye dañu bàyyente xel ñun ñaar ndax ñaari yëf bu jëkk bi mooy langage de vérité bi bu ñaareel bi mooy franc parler bi waaw Habib ku ñëwee dëgg la waaw te li muy waxit du ko làmbaatu waaw xam naa looloo tax yàlla xiir kenn ku nekk ci ñun ñaar ca ka des ñuy def échange bu mel noonu maanaa dafa bari ñuy soow nan ñun dañu beru rekk sunu bopp rekk lañu faale te fekk njuumte la waaw Modou Fata Sarr ñëw set si ma oustaz cheikh mi moko indi ñuy waxtaan mané ko oustaz Mudu Fata muné a mané ko est-ce que xam nga len muné a mané ko ku naw cheikh bu serigne Mansour la ma ko ñaar moo tax ma naw ko bu jëkk bi mooy nit ku teey la bu ñaareel bi mooy xumb xumb yi doomu sëriñ yii di bëgg gis naa di bëggu ko yi moo tax mu neex ma mu ne ma jar na mu xam ko nag man ko bàcce des man ko ki ñoo wax sëriñ Babacar Sy Abdou nga ñu gën ko miin ci njool Fuuta waaw ma ni ko ku ma neex la ndax moom it langage de vérité ak franc parler bi ci des mooy ci wàllu jol ku simple la waaw ni ma baax na nag ñu xam ko pour wax la nit ñee xamul lu xew rek mais liy dox a ngi dox ma toog fan yii xalifa Sarr bi yóbbante ni ma wax leen ko ni ko waaw waaw déedéet du xalifa Sarr boobu mu ngi ñëw pap Cheikh Sarr bi mu yónni Cheikh ni ko waxal góor gi ni ko soxna ummu xayri bu sëriñ Mansour mu ma yóbbante ci moom nee na nga waxal ko sëriñ Moustapha ni ko mu ngi koy nuyu te mu ngi koy ñaanal yàlla lu mu man te mu ngi koy sant ci taxawaayam waaw ndax taxawaay bi mu am ci kër gi bu ko ñépp amoon kon kër gi dem na feneen waaw umm bu sëriñ Mansour moo ko yóbbante pap Cheikh Sarr bi fan yi passé matagul sax weer ma toog tuuti xalifa Sarr bi ñëw yóbbante Cheikh ni ko waxal sëriñ ni ko bàjjanam umu xayri bu maam Abdou Aziz nee mu ngi koy nuyu te mu ngi koy bàyyi xel te mu ngi koy ñaanal la mu daan def sax di teew ci jataay yi yaramam moo ko mayatul waaye bu sañoon fu mu toog mu toog fa waaw waaw ma ah, waaw kon lu des rawatina nag sunu bàjjen yaay sufi moom ñëpp ko tane ndeysaan day jooy rekk waaw day jooy rek njabootam yépp daf leen xiirtal ci man watina abdurahman abdurahman Touré ak soxnaam waaw wa tabarakallahu day ñaan day ñaan ba am na ci bu nga xam ne yàggul Sëriñ Mansour Sarr ko fekke waaw lu ne ñaan na ko man dafa ne kon nag yi nit ñi di wax lan la hmm? boo xamul rek danga xamuloo waaw moo xamul xamuloo guddi gu ne bala may tëdd dinaa déglu sàmbuub dinaa déglu dut kànd dinaa déglu Pape Malick ak Cheikh waaye dinaa déglu sama doom bu ndaw bi bu ñoo tudde bay bay nañ ma ko protéger waaw ñii kat taxawu nañu héritage yu mbay doon moo tax ma bàyyi leen xel waaw li ma leen di ñaan rekk ba ci sàmbu na bàyyi xaaju kenn du yore rajo ba noppi di xaaju bu ñaareel bi mooy bu muy wàcc trajectoire am parce que mag ñi seen way boo wàccee sa trajectoire rek dafay am lu mu rax te seen biir dafa sérieux waaw bu ko defee kon nag waaw ñu war a xam ni bokk dugal naa ñépp ci sama biir waaw dëgg la nag duma taxawaalu dëgg la itam duma ñàkk fayda invitation bu nekk dina ko jot ma seet ku ma wóor ni mën na dem ci sama place ma wax oustaz Cheikh mi ni leen def leen délégation sàngam ñu dem teewal ma nit ñu bari bu ñu sañoon yaay ñëw waaye doo dem di yàq yëfu jàmbur ndax Pape Malick Mbaye daf ma ni sëriñ bi bu ma sañoon moo xam léeg-léeg yenn àjjuma rek nga ñëw jullee si jumaa ja ma ni ko ma yàq jumaay jàmbur c'est très important yow koo xam ne boo jullu see jumaa ji yëpp yëpp yàqu te dem juma xaram na ndax ku ne dana jóg fa mu ne bëgg laay ñëw fekk fi nga ne nuyu la bu ko fee def désordre boobu ci jumaa ji te yàlla rekk fa war a yóbbu nit ñi moo tax rekk yu bari ci tahwil mooy tax dana bari lu war a mën a nekk waaye ñu di ko daw ngir am lu ñu sedd rekk waaw bu ko defee kon nag di ko xamee noonu dafay baax ñuy sant ñépp ah